su ma nee nii ba pare ne la ginnaaw ma sant yàlla gisub gëstu bi rafet suñu ñaari waajur maa ngi gërëm waa police gépp di gërëm waa administration pénitentiaire parce que fi ñu toog nii mooy directeur camp pénal parce que ñëpp xam nañ police ak waa camp pénal ak administration pénitentiaire ñoo bokk fi ñu daan formé mais il y cinq ans ci la administration pénitentiaire amee seen école bopp dem sa waxtaan mais avant man mi encadré naa promotion pénitence yu bëri mais lu ñu indi fii tey mooy administration pénitentiaire yemul rek ci jàpp ay nit ñu tëj leen kaso ñu leen garde di jox procureur ak dem ak ñëw mais dañoo boole suñu programme di jàngal nit ñi métier réinsertion sociale boo ko déggee mooy ku juum ñëw ci bërëb ñu la war a faa jubbanti ba boo demee ci société bi mën a am beneen toogalin ba doo mën a ñëwaat moo waral fii am na ci boulangerie buy liggéey buy lakk mburu fii di jaay mburu mu neex man parfois ma jaar fi ñam ci am nañ fi ay tailleur sama xarit Mbay Jaxata yor ko ap am fi yeneen am fi menuisier métallique sama paa bi ndeysaan BC kii moo ko yoroon dugg ay temps depuis boobu fii ñëwuñu fi rek pour saaga pour dóor bi fay ñëw pour yar nit dimbali la ba boo jugaatee ci askan wi li la taxoon a ñëw fii doo fi ñëwaat parce que nit ku ñëw fii c'est pas parce que bon moo la fi mais mooy teg fi bërëb la boo xam ne da nga fi ku baax dafiy jaar ku bon dafiy jaar mais boo fi jaaree da nga fiy fekk ay doomu aadama dañu leen formé ci loolu ci mbirum droit de l'homme yàlla may ñu chance aussi ñu am benn ministre de justice actuellement muy maître Mar mu nekk doomu aadama bu nekkoon avocat yàgg ñëw fi doon défendre ay nit mu xam lan la yi di daj mu leen ciy dimbali ñii tamit dama leen sant leen gërëm parce que mënoon nañoo def li bañ ma ci invité mais bu ñu xalee di man seen mbokk am de tëni laax ñuy sol tëni a ngi koy def di wax ni dinaa ñëw bu may sabar dinaa sabar bu may taajamoon dinaa taajamoon rien que ñu wan doomu aadama yi que ne sénégalais dañoo respecté droit de l'homme que prison yi nekk Sénégal bokkul ak prison yi ngay dëkk ci seeneen fii da ngay lekk ba suur naan ba mandi oma jaa ngi nii kenn du ko wax meew maa ngi nii ñun di fii lépp a fi am kon daal ñu ngi sant yàlla di gërëm directeur aussi si initiative bi di ko wax ne ñun ñu ngi félicité lépp di félicité aussi tamit képp kuy sénégalais ku ñuy suivre ñu ngi lay sant la gërëm di fekk la sa bureau ngay def acte bu am solo lu social parce que képp xam réinsertion social xam ni lii moo tax ñu koy wax mooy wan nit ki ni société bi ngeen bokk bërëb bi metti na quatre murs la waaye ay doomu aadama ngeen lu waral initiative bi. tout ñu ngi leen di nuyu ah, ku si nekk ci turam ak santam euh, di leen souhaiter la bienvenue au niveau di camp pénal bon bi ngay wax sax bi Pato dama lay remercier parce que bi ngay wax see comme si benn pénitentiaire mooy wax donc xam na xam na fi lu bëri. peut-être que peut-être que ñi fi xamul ñooy ñoo ñooy wax yenn yi mais fii bi ngay wax comme li ma wax léegi rek day mel ni pénitentiaire mooy wax parce que tellement que li ngay wax c'est véridique parce que ñu ngi camp bu ñu waxee camp mooy prison bi nga xamante ne ne fii la ñuy téye longue détention yi te ku wax longue détention di nga wax préparation à la réinsertion sociale donc administration pénitentiaire ñaari mission la am première mission bi mooy mission de sécurité bi nga xamante ne ne mooy surveiller ñi nga xamante ne yoon da leen teg loxo deuxième mission bi di mission bi nga xamante ne moo ci gën a am importance di mission de préparation à la réinsertion sociale te comme ni ma ko waxee léegi rek bu ñu nee mission de préparation à la réinsertion sociale mm-hmm. liñ ciy gën a viser mooy campino yi campino yi ñaar la benn mi ngi Koutal benn mi ngi benn mi ngi fii nii fi ngeen nekk nii fi lañ leen dalal nii bi Pato mu ngi koy cité léegi am nañ fi ay atelier yoo xamante ni dañuy fexe di préparer les détenus à la réinsertion sociale atelier tailleur mi ngi fii atelier menuiserie bois mi ngi fii atelier menuiserie métallique mi ngi fii atelier boo xamante ni man maa ngi leen di tuddee un atelier boo xam ne ils sont polyvalents pratiquement tout ce qui est fauteuil décoration dañ koy def meubles yi ngeen toog ñi fi lañ ko defaree ñoom ñoo ko defar am nañ fi équipe boo xamante ne équipe bâtiment la parce que bâtiment bii ngeen tiim nii ñoom ñoo ko tabax c'est des ni ñoo ko tabax et bien payé également nekkul dañ leen liggéeyloo di leen seetaan voilà dañoo dañoo liggéey ñu fay leen ñu toog fii def seen i bon génnee xaalis bi xaalis bi dem ci seen njaboot donc nit nekk na ci kaso liggéey ci xaalis yónnee ay parents donc loolu am na ñoo xam ne bu ñu leen ko waxoon tey peut-être que duñ ko gëm te pour temps loolu moo fi am par rapport ak activité bi indi nii tey mission préparation à la réinsertion sociale du jox nit ki métier rek préparer ko psychologiquement ak fexe muy dund loo xamante ne ñun ñi ci biti ñu ngi koy dund da cee bokk loolu taxal ñu organiser ay tournois mu nekk ay tournois de lutte mu nekk ay tournois football tournoi basket am na sax ay sport individuel yoo xamante ne ne ay jeu de daam ay Scrabble bullet yooyu yëpp am na yooyu yëpp dañ ko dañ ko dañ ko dañ dañ dañu primé sax ñi jël trophée yi bi ngeen ñëw nii moom mooy tëj affaire yi mooy feet bi mooy làmb ji mooy mooy final bi donc duñu def lu dul di ko rafetlu di leen bàyyi ñu dugg ci biir ngeen xool làmb ji nu muy demee incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñu sigir ci Leewtoo TV tey nag ñu ngi ci biir pression bi tey fi la Leewtoo dugg ak làmb ji 100 pour 100. li ñu fendi nag ay sénégalais ay doomu aadama rawatina ku mel ni Big Pato ak yeneen doomu aadama tey ñoo ñëw jàppale prisonniers yi ci seen dund ak seen nekkin ñu boole ko nag ak làmb yaa ngi te làmb jooju prisonniers yi ñoo koy bëree waaye nag dafa am loo xam ne yoon moo koy bañ ki nekk ci biir kenn du ko wane mais ki ngeen gis mu toog nii moom mooy kilifa prison bi invité yaa ngi nii toog yaa ngi dégg waa làmb ngi fi guy gi mu ngi ñëw Mbayang Fall nga ne ngeen ko ci làmb ji Ablaye Diop bëgg Fallou Adama Diouf le grand champion mu ngi noonu toog Mbaye Guèye nga ne la toog waa Mbaye Guèye mooy wax noonu yàgg moo sol capuchon bi école de lutte bu Mbaye Guèye l'école de lutte Double Less bu nga ne la toog gis nga ndaysaan public baa ngi ni toog mbër yi war a bëre waaye nag ñoom ñi ne ci biir dañoo am ay droit kenn du leen wane yaa ngi dégg amul wane leen wala nangam sangam waaye daal loo ci mën lii moom lu am solo la prisonnier yi fi nekk nag wala fu prisonnier nekk rek ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na nga génn ak jàmm delluwaat ci société bi parce que yàlla mooy dogal lu ko neex ci jaamam xam nga waaye addina daal dañ ne moo ko weeru koor a yem rek yàgg feeg dun feeg ndogu jotul juubu weesul ñu bàyyi ci xel ñi ci biir bu ñu sañoon yaakaar naa duñ fi nekk kon tamit nañ leen di ñaanal rek yàlla génne leen fi te bu ñu dellusee nekkat ci li nga xam ne moo neex yoon. ñu ngi ci biir prison bi Adama Diouf maa ngi lay nuyu di lay ziar. Babacar Leewtoo TV maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bokk na ci ñi nga xam ne su xaw suy xew léegi yaa ma njëkk a taalal micro ma def ci lu rëy moo tax euh, ci yoon sax dama la war a décorer parce que loolu den nga ko defoon mu nekk loo xam ne dafa amoon boor ñëpp ngeen ma cee ràññee ma dina la nuyu rek di la jox sa wàccuwaay. tey boo ñëwee fii ci prison bi gis ay mbër di bëre ñoo xam ne tey. buñ nekkoon ci biti ay grand champion la ñuy doon loo maanaam sa yaram lu mu yëg man kay fi ma nekk nii nekkul laa buleet ma fi ñëw nag may sama yaram day daw chaque jour bu ma ñëwee fii dafay mel ni sax du ma mbor mais euh, euh, euh, xanaa adduna moo demee noonu rek ndax adduna boo gis moom sa jaar-jaar fu ko yàlla war a def il faut yàlla def ko bu ma ñëwee fii nag à cause Euh, Angel Fall ak Mbayang Fall mi nga xam ne moom itam ànd ak suma production ak góor waa Grand Yoff laa fi nekkal ànd ak Badara Kebe bi nga xam ne yàqul dara day defar Grand Yoff rek mais bu ma fi njëkk gënee ñëw nag à cause de Angel Fall moo tax ma ñëw fii. nga xam ne social bu muy def ci dëkk bi ñëpp gis nañ ko ak jàppale bu muy def nekkul fii rek lay def social foo ko gis rek moom def fay def social te mu nekk sax jigéen yoo xam ne bëgguñ ñu xiif bëgguñ ñu mar. ceeb loo xam ne yow sax mën naa la ci nettali lu bari ndax ndax mën nga cee gis lu bari yoo xam ne yaa ngi gis fi ma nekk nii man wax dëgg ba ma bëggee dëgg dëgg la man mënuma sax wax Babacar ndax sama yaram ma ñëwee fii dafay mel ni sax man ma comprendre du ma mën a xam sax lan laa mën a wax mais maa ngi lay gërëm di gërëm Leewtoo TV gis naa li ngeen di liggéey ci réew mi di gërëm sa caméraman vraiment sama yaram day daw bee du ma mën a sax wax xaw ma sax li may wax ni ma nii vraiment kontaan vraiment su ma xool ok merci Ablaye Diop Soum Production fii tamit boo fi duggee tey ay prisonniers nekk fii ñu organiser fi làmb ñu koy bëre yow ngay promoteur di tëgg làmb sa xol euh, maanaam daal waaw Ablaye xol bi daa mel ni tooy na de. Babacar euh, nuyu naa la lu bëree bëree bëri nit ku am kóllëre nga di ñaanal waa Leewtoo TV rek ci kaw ca kanam seen liggéey rafet na avant tout di seen teewaay fii dara waralu ko lu dul waa axlu lamb rek ngeen bégal leen fépp lamb di yëngatu. suñu teewaay tey fii ci prison camp pénal ànd ak suñu jigéen ju baax Angèle Fall mu bokk ci marraine yi Babacar bi ma duggee fii yëg-yëg bu rëy laa am ndax ñii ay doomu aadama lañu xëy na ndog-dog la rek lu mun ta ñàkk seen parcours moo leen fi indi présentement fi ma toog ni en tant que promoteur sama équipe yëpp mooy nan laa mun a def ba bégal leen ba apporter leen quelque chose fi ñu nekk nii actuellement macha allah. jërëjëf Babacar merci beaucoup. Mbathio maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax sama xarit. Babacar mbaa am nga jàmm. Babacar kontaan naa bu baax a baax maa ngi am jàmm. tey nga ñëw si prison bi si bés bu mel ni nga xam ne affaire sociale moo yëkkati ñi fi ñëw tey lan moo waral Mbathio bokk ci lu mel nii. waaw ku ne xam na ne ñoom ñi ma ko doon waxee chaque année rek c'est la quatrième fois ma fiy ñëw ñoom chaque année dama fiy teew xanaa ma ñàkk fee ne comme ni ma ko waxee su ma nekkee hors dakaar Dakar du ma mun ñëw mais su ma nekkee biir dakaar ñoom suñu ma wooyee damay ñëw te dañuy sonn loolu ñoom pour mbaaco ñoom ñoom dañoo bëgg mbaaco moo tax lépp lu ma jàppoon ci jour bi ni dama koy bàyyi ñëw wuyu si leen bégal leen ndax loolu mooy àdduna société la ñoom ñi leen fi dugal tey mën na mu fi dugal mën na fi dugal keneen ak keneen ak keneen kon àdduna amul solo ba tax na ñoom jour bu ñu wootee rek man damay ñëw say ay jigéen ñu ngi fi ay soxna di sa ay moroom ñoom ban yóbbante nga leen di yóbbante waa jigéen ñi comme ni ma ko waxee léegi chaque année ñoom tamit su weeri koor jotee man damay def li mu ay jigéen lañ comme man li leen fa dugal tey li ma wax rek on sait yàlla rek moo xam ndax ku nekk ci xare waroo reekuñ jëm mën naa fa dugg keneen mën na fa dugg sama mbokk sama xarit ñoom ñëpp a ngi fa kon weeru koor ba weeru koor dama fay dem des fois su ma rombee tamit taxaw dama bi tam nekk chef bu baax ma visité leen xool waxtaan ma kaf ñaan ñoom ñëpp ñu génn si tolof tolof parce la te yàlla ku mu bëgg du la def tolof tolof mais ñaan ñoom ñëpp ñu génn bu déwéen su ma fi ñëwee bëgguma fekk kenn sax kontaan ci yow. kontaan naa Babacar. ba tey ñu si biir prison bi ah waaw parce que comme li ma wax sànq la rek fii moom jombul kenn daal Modou Mbaye 2STV nga ñëw teew fii tey lamb ju fi pini euh, maanaam di bëre sa teewaay fii parce que yow su ma jumul sax yaakaar naa ne lii yàgg nga ko yàgg nga see bokk. waaw yàgg naa ci teew di la nuyu di nuyu téléspectateurs yi bu baax a baax internet yi di ñëw fii parce que ay sénégalais lañu di ñëw fii parce que suñu ay frères ñoo fi nekk yàgg naa bokk ci ñi nga xamante ñu ngi koy organiser am na fi at boo xamante ne nii sax man maa ko fi organiser woon muy loo xamante ne nii lu amoon solo la àndoon ak suma ay frères yu fi nekkoon ay détenus am na ci ñoo xam génn nañu am na fi ñoo xamante ñi ngi fi ba léegi des fi di leen ñaanal yàlla sunu borom génne leen ñu ñëw fekk si waat ñu ci biti ñu bokk ak ñoom société bi ànd ak ñoom liggéey bi nga xamante ne nii ñu ngi koy ñu ngi koy def di leen nuyu bu baax a baax a baax di leen xamal ni di leen nuyu bu baax a baax di leen xamal ni ñun ak ñoom la rek saa su nekk rek ñoom ci lu ñu nekk rek ñun bëgg nañ ci nekk ak ñoom mu mel ni tamit su ma la gisee dafa mel ni say say ni dafa nekk fi ci prison bi wala am na nit boo xamante ne maa ngi moom a duggandoo néegu góor kii ma dendal maa moom ñoo duggandoo néegu góor sama xarit la ñoo on a tout fait mais am na koo xamante ne man ak moom ak kooku ñoo duggandoo néegu góor yàlla teg ko nattu mu nekk nattu boo xamante ne xaw na yàgg mais ñun ñu koy ànd ak moom parce sunu xarit la sunu frère la ak ñeneen ñoo xamante ne ni xamante nañu ak ñoom ñu ñëw foowandoo mais yàlla loolu lay dogal rek tawféex la loolu la yàlla dogal ci ñoom lii la yàlla dogal ci ñun ñu ñaan yàlla sunu borom dogal ñu ñëw ci ñoom ñu ñëw fekk si ñu ci biti te bañ tañ bañ fi ñëwati ci barke yoon ngay ndaw lan ngay ñaaxe ndaw ñi tamit tey ci lu mel nii. ñu gën a góorgóorlu loolu dafa lii dafa dañoo war a gën a góorgóorlu gën a gën a gën a moytu loo xamante ne nii dafa ñuy indi ci bërëb yu mel nii amaana nag si jombul kenn nit day des fois dañ lay tooñ sax indi la ci bërëb yu mel nii comprendre nga te loolu yàlla sunu borom moo ko dogal ci doomu aadama mais li ñuy wax naan yoonu dëng la ñu bañ ci jaar ba bañ a ñëw ci bërëb yu mel nii parce que neexul ci waajur bi nga xamante ne nii mi ngi gàddu boolu añam chaque jour di ko indi ci kaso dafa metti Babacar am na ay yaay yoo xamante ne nii jàmm lañ dëkk am na yaay yoo xamante ne nii Grand Dakar lañ dëkk am na yaay yoo xam Pikine lañ dëkk pendant dix ans pendant quinze ans ñi ngi gàddu boolu añ di ko ñëw di ko indi ci bërëb bi di fi fekk seen doom dafa metti yàlla na yàlla may leen jàmm ñu libre ñëwaat ci biti ci barki yonent bi bégee naa la. ba tey ñu ngi ci prison bi ah général Malika tey ñu ngi ci biir prison camp pénal ngir social ngir détenu yi ngay champion ma gis nga ñëw ñoom ñëpp ñu jóg tàccu la yëkkati seen loxo. Babacar ñun lii lañ fi am quoi ku ne xam na ni fii ci biir ku nekk a ngi fi quoi façon xeetu nit ba ngi fi imaam yaa ngi fi homme d'affaires yaa ngi fi professeur yaa ngi fi nit yu baax yaa ngi fi ñëpp fi nekk mais nag li ñu fi indi mooy sunu ay nitu bopp yàlla da leen teg na te ñu nekk fi nii moo tax ñun ñu lépp luñ jàppoon rek dañ koy bàyyi ñëw fii bëgg leen doole leen yokk doole ndax li lañ am si ndax saa su ñu ngi ñuy bàyyi lépp lu ñuy def ci làmb ji ñu ngi ñuy bàyyi xel ñuy yëglu ñun lu ñu am rek mooy di leen delloo si jugal ñëw wala leen ñun ñu ngi seen ginnaaw ndogal lu mënta ñàkk la ñii ñu fi dëkk ñu nekk gënuñu leen xëy na ay natoo dal yàlla dogal ñu ñëw fi ñu leen di ñaanal yàlla leen suñu borom suturaal bañ génnaat si jàmm doolewaat ci seen njaboot yi quoi hmm. kontaan ci yow. waaw fii la ëppee Babacar jaajëf di bég ci yow yow tamit jaajëf jaajëf Thank you. ci bi ak suñu yaay yaayu Waly Seck mën naa ne sax yaayu Sénégal parce que Waly ñëpp a koy dund di ko béggee tey nga ñëw fii yaay booy Kiné Diouf bi nga duggee fi ci prison bi lan nga njëkk a dégg en tant que yaay. waa li ma njëkk a yëg mooy xam nga fii moom sama kër la chaque jour maa ngi fii lu bëree bëree bëri donc premier temps yi mu fi njëkk a ñëw xawoon na ñaa metti trop mais léegi moom mis naa ko léegi moom mis mis nga fii. léegi mis naa maanaam li nga ñëw kon bëri na. waaw sama njaboot lañ. kon su ma la déggee maanaam socialement tout le temps yow yaa ngi jàppale détenu yi. samay njaboot lañ daal samay njaboot lañ waaw. ñi ci biti nga xam ne yàlla dogalul ñu dugg fi parce que am na ñoo xam ne ñii dañuy tooñ ñi bañ ñii ñu tooñ leen ñi nekk ci biti duggaguñ fi ban leçon nga leen di jox wala boog loo leen di wax. Euh, pour ñu nekk fii ñu leen di seet di leen toppatoo di leen dimbali ndaxte àdduna moom dafa yéeme te gudd tànk te gis nga fii jombul kenn. Euh, donc ñi si biti dañu war a bàyyi xel ñi ne ci biir fii waaw. maanaam di leen dimbali. di leen bàyyi xel bu baax a baax a baax am na solo ndax tey rek la xam waaye suba kenn xamul lu yàlla bi. kontaan ci yow yaay. maa gis kontaan jërëjëf. ak kóllëre bi sant leen gërëm leen di sant sama càmmeñ yi waa sum production ak waa góor production ma maa ngi lay ziar. fay naa la. am jàmm. mu mel ni Mbaye Nene bii mooy ñaata drapeau pour yow fii. waaw mooy di la Mbaye wax rek mu ne ma wax moom mooy ménager lu mu la wax rek noonu la. ñaata yoon la ñu tuddee fii drapeau laa wax ñaata yoon. Euh, bii mooy bii mooy quatrième fois waaw. ñi nekk fii noo leen gisee. waaw su su ma paree fii damay dem Cap Manuel su ma jógee Cap damay dem 100 mu mel ni yow itam ci côté social bi da ci ciy bu baax a baax lan moo tax Ancel Fall di def social ba prison bi sax mu ko ciy boole. am am seen yi yéemande xam nga heure bi mënoo dama fekk waal yi su waal may baa taxe ñoom ñoo ko gën a yeelool moo tax lépp ma yàlla du wërsëg ma bokk ak ñoom am na solo kontaan ci. merci. ñu ngi dellu ziar baax. Sa tey ñu dajeeg yow foo xam ne nii lieu la boo xam ne nii ay détenus lañ fi denc maanaam ay doomu aadama yoo xam ne xëy na dañoo wàcc yoon ci li ñu wax ba denc leen fii bi nga fi ñëwee fec ñoom ñëpp ñu jóg saa lan la yëg. moo tax chaque fois sama sama kàddu bu ma ciy wax danaa ñaanal ñi génn àdduna di ñaan ñi tëdd hôpital ñoom laa ciy teg parce que lii du jaas ci doomu aadama ndax kenn ku ci nekk yàlla rek a xam ëllëg li am solo ba am solo mooy maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu génnaat ci jàmm leen fi dugal bañ leen fi dugalaat. ak feneen fu nit war a nekk maa ngi lay ñaan a nga génn nekkat ca jàmm mën sa gérer sa famille fondement njaboot gi yëpp ci barke Seydina Mohamed wax dëgg yàlla parce que ñi fi nekk nii tey kaaraange réew mi leen fi teg wax dëgg yàlla tey euh, ngi ñaan yàlla rek euh, yàlla defal leen jàmm waaw. ay ay détenu comme ni ñu koy waxee mu mel ni kii euh, ñi nekk ci biti. dinaa la laaj parce que am na ñoom ne dugg guñ fii yàlla bu fi kenn duggati yaa ngi dégg ñi ci biti tamit loo leen di digal pour ñu moytu lu nii. ñu góorgóorlu sax ci lu jub rek sax ci jaamu yàlla ndax jub du ma ne terewul nit ñëw fi parce que fii moom am na ñoo xamante ni xëy na du coobaree lu bon wala lu ñaaw moo leen fi dugal erreur day am mais maa ngi leen ñaanal yàlla rek kenn bañ ko cay fekk yàlla yàlla dénk ñëpp jub sax ci jaamu yàlla yàlla jubanti ñu musal ñu ci fii wax dëgg yàlla. ñun loolu rek lañ ci mën a wax ndax fii moom li yàlla xam doy na ñu ngi sant ba jërëjëf. guy gi maa ngi lay ziar. waaw maa mel ni tey da ngaa da ñëw foo xam ne nii ñi fi nekk dañ leen fee denc ñuy ay détenu di suñu ay mbokk suñu lépp guy gi ma gis nga jóg fecc bégal leen ñoom ñëpp ñu tàccu la loo yëg bi nga dugg see fii. waaw d'abord damay sant yàlla jël tamit sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ sañaar sak borom ndigal di ñaan senegal yàlla fi jàmm yàgg te wër nuyu sama xalifa général di ñaanal sama maam Ndiaga Seck yàlla yóbbu ko àjjana yàlla mënu ko yàlla yàlla def nuyu ñëpp Babacar di la nuyu yow di nuyu ñi nga àndal ñoom ñëpp Lamine yow Babacar tey su ma ñëwee tey fii ma fi war a ñëw parce que ñi fi nekk bon dugul leen fi baax ñi fi nekk taxul ñu bañ fee ñëw natu la ñu bëri fa ay supporters loolu nag ay fans ñu def seen combat soxla ñu même buñ ko waxul woon it su ko ñu dañuy ñëw loolu mooy suñu teewaay tey ñu nekk fii wala sax maanaam détenu yi bu guy gi amoon message bu leen di lancé ban lay doon. mooy nattaloo rek ndax ku tedd gi mu Xaadimu Rasuul suñu juumul jaar na fi kon defe naa ne loolu ferte la ci ñoom ku fi nekk rek boo fi génnee xam nga li nga def mu baax mu bon nga bañ cee jaaraat bu dee bon la bu dee lu baax la nga yokk ko parce que natu ni wurus wurus ni ko xal di ko defee ba mu am taar noonu la natt jaamu yàlla di ko def ci moom ba mu nekk nit. moo tax euh, faaw nga nekk nit koo xam ni danga koy mën a muñ accepté ko mais dinañ ñaanal rek képp ku fi jógee rek yàlla yokk la ci ko am anam boo nekkee nit ki bëggul bon suñu borom rek moo koy bon loo. ñi fi duggagul te yàlla bu fi kenn ñi ci biti yàlla bu fi kenn dugg comme duggaguñ fi loo leen wax ñoom. ñu moytu réew mi toll na foo xam ne ñëpp kenn wérul mën nga laal ni sax mu dee te fekk dafa doon dee yàlla jaarale ko ci yow histoire baaxul jàmm rek moo gën lépp àdduna bi jeex na ba pare ñu yéen te jàmm jàmm ci lépp xaj. di nuyu waa ñëpp nag waa États-Unis ñoom Gambien ñoom Abdou Diouf Abdou Medina ñoom Laye Ndiaye Yamou Ndiaye bàyyiwuñ kenn waa États-Unis ñi leen bëggee bu baax parce que ñoom ñi tey ku fi ñëwoon tey di nga am fierté ñëw fii kon defe naa man ma teewalee teewal naa ñëpp kontaan ci yow yow it kontaan ci yow di la jox rendez-vous xam naa war nañoo yaatal lu bëree bëri naa ñëw kër lu bëree parce que maa ñoo bokk yoon bu ñuy génn ndeysaan ñi ñuy suivre ñu ngi leen di waa ndeysaan ñaari mbër yaa ngoongoy bëre ci camp pénal ñaari mbër yaa ngay bëre li tax na gisu ngeen ci kaw waaram seen baat yi loolu yoon da koy tere moo tax tànk yi rek ngeen di gis noonu waaye ñu ngi ci ci bëre bi ndeysaan ñuy ñaanal prisonnier yëpp yal na leen yàlla defal jàmm defal ko bépp doomu aadama génne leen fii ñu nekk ba ñu ñëwaat ci askan wi ndax na kaso jombul kenn moom waa Big Pato mooy arbitré combat bi le police mbër Big Pato fois nga tooñ dugg fi des fois ñu tooñ la dugal lëf lépp mën a ne waaye lam yàlla fekke na ko ndaysaan déggal loo man ci man defal ndaysaan e eh waay ñu ngay way loo man si man defal yàgg maar ndeysaan cey loolu ndeysaan daa mel dañoo xaw a sonn de ñaari mbër yi ñu ngi déglante léegi de atte nañ leen ñaari mbër yaa nga ca ngeen ñuy topp ci Leewtoo TV ak TV xam nga ñun 100 pour cent lamb la ñuy def ñaari sit yooyu moo tax fu mu nekk dañ ko fay fek jàppantey puusante mais respect laa lay wax sax di la nuyu di la ziar bëggoon nañ euh, nga fàttali ñu tur bi waaw man la colonel Jean Bertrand Bocandé euh, directeur de l'administration pénitentiaire tey maanaam ñu ñëw fi nga xam ne nii mooy camp pénal ndax ay détenus yoo xam dañ leen fi tëj ñu organiser leen lu jëm ci wàllum sport ba tey làmb tëj ko lii ñaataat ngeen koy def ak lan moo tax ngeen di ko def. waa kay jërëjëf xam naa wax bi du gudd sax parce que fu mu nekk nii daanaka guddi na dama bëggoon euh, tàmbali remercier euh, remercier euh, ñi bàyyi seen soxla yëpp ñëw jàppale ñu. ah gis nañ fi maire bi gis nañ fi le président Dembélé juge d'application des peines gis nañ fi grand champion le roi des arènes ak grand lutteur yi ñëw nañ gis nañ fi aussi ay musiciens ñëpp ñëw nañ jàpp ci bés bi. waaw wax dëgg yàlla ñooñu amuñu leen fay parce que li ñu def nii ñun la ñuy jàppale parce que lii dañ koy soxla dañ koy soxla fii ndax ñii nekk fii xam nañ ne ñii nekk yi biti fàttewuñu leen que nattu moo leen daal boo xam ne moom lañ ko war a passé fii su jeexee dañuy fekk si njële donc su loolu weesoo gis ngeen activités yi gis ngeen nu mu demee euh, fii euh, foo agréé la foo agréé loolu moo lay wan ne ñoo bokk benn famille. Euh, lii nag c'est des activités j'allais dire yoo xam ne chaque année. Euh, inspecteur Thiaw yàlla def mu mooy directeur euh, campénal bien sur sous la la direction de de l'IRAP Souleymane Faye dañuy organiser manifestation yi daaw yàlla mayoon nañu ñu nekk fii ren tam yàlla may ñu ñu nekk fii ñu ngi ñaan déwoon tamit vraiment bu kenn manqué ah ñu fekk ko si jàmm ak salaam ah. donc sama gars yi ñoom sama pensionnaire je crois que wax bi du du gudd trop parce que man gajuma fi euh, ajuma bi génn weesu rek laa fi laa fi mujjee ñëw. don euh, accueillir en visite euh, monseigneur euh, Benjamin Ndiaye mooy archevêque de Dakar donc man lu ma leen di wax rek mooy nañu muñ nañu muñ kaso jommul kenn ah ñun lu ñu war ak ñoom ñu ngi koy def te ñoom xam nañ ko. vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant ñoom journalistes yi nga xam ne saa yu leen wooyee da ngeen di bàyyi seen soxla yëpp ñëw ñëw taxaw ñu waa kay jërëjëf di sant ñu fi ñu fi ñëw ñëpp.